Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka nahbudu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Assalamualaikum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ci kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziar di am mbégte ñëwaat fii jàkkaarloo ngeen waaye di am naqar ci benn côté tey nag li tax ma bëgg a def vidéo dafa nekk loo xam ne hmm, sujet bu complex la parce que fa commencé moo sori waaye avant tout damay jaale mboolem ñu ñàkk seen bakkan ci gaal gi muy Barça wala Barça li masawu mboolem way jur boo xamante ne nii sa doom ji nga amoon yaakaar mu nekkoon sa wéeruwaay nekkoon sa ndimbal nekkoon sa loxo ndeyjoor nekkoon sa loxo càmmoñ tey suñu borom dogal na ci moom li gën mooy que dem na ci ndox mi des na ci géej gi amaana nit ñaa ngi toog seen ay kër di di di di faatu ñaa ngi ñaa ngi dugg oto di faatu nit ñaa ngi tëdd nelaw sax faatu parce que dee moom li yàlla naan kullu nafsin zaa'iqatul mawti rek moo ci nekk bakkan bu mos tund di nga mos dee waaye kenn ku ci nekk ak fi nga xamante ni fa suñ suñu borom tudde ne fa nga war a fa nga war a yàlla yàlla def ñi nga xam ne ñoo génn àdduna ñëpp suñ borom àtte leen ci yërmandeem dugal leen jannatul si xaar leen ak àjjana ñoom ñëpp jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, immigration seen nag li tax ñu am fitu wax ci mooy que ñun dund nañ ko Mm, dundu nañ ko ci fànn yu bari tey immigré nañ ci trois pays yu différents trois continents yu différents ci cinq pays yu différents muy asi muy Amérique latine ak Amérique du Nord ba tey ñu nekk Amérique gii nii États-Unis d'Amérique kon yaakaar naa euh, am nañ ci kàddu bu ñu war a mën a wax parce que bu fekkee génn mooy tax nit am expérience ñu ngi ci bitti. bu fekkee dund Sénégal itam ak dundu lu métti moo tax ñu am expérience ñun dund nañ ko bu fekkee jom ak fulla ak fayda ak bëgg tekki ak bëgg lu gën li nga nekkoon mooy tax nit génn dund nañ ko ndax am nag discours bu ma gis ñu bari di ko tëniir ci internet bi ci télé yi ci rajo yi mooy ñu bari ñu ngi wax naan na booy gëm seen bopp toog Sénégal tekki Sénégal na booy gëm seen bopp loolu bu ma déggee ko wax damay rus parce que day miin laaj day mel ne ñi nga xam ne ñoo jël gaal ñoom gëmuñu seen bopp booy gëm seen bopp toog dëkk bi ñu fi dëkk toog fi tekk yi avant tout nag maa ngi leeral man fi encouragé wu ma kenn pour mu jël gaal parce que ay risque la te bakkan xaj na ci waaw encouragé wu ma kenn kenn kenn pour mu jël gaal kenn ku ci nekk maa ngi lay ñaanal boo bëggee tukki ak dëkk boo mën di dem ci bëgg dem ci àdduna yàlla suñu borom yombalal la ba nga am kayit wala papier boo xam ne wala visa boo xam ne da ngay mën a jël avion wàcc dëkk ba nga jëm mais tey dama bëgg ñu commencé waxtaan bi fu sori foo xam ne déggaguma benn tele wax ci déggaguma benn rajo wax ci dëgg dëgg immigration bi lan moo tax nit ñi bëgg a génn seen ay kër lan moo tax nit ñi bëgg génn Sénégal du rek affaire koom-koom du rek affaire xaalis du rek affaire bëgg a dimbale sa yaay affaire bëgg dimbale sa papa. am na nit ñoo xam ne ñu ngi Sénégal ñu ngi dimbali seen yaay ñu ngi dimbali seen papa ñu ngi am ay bien tey boo leen laajoon 10 millions ci visa Italie wala Espagne ñu fay la ko. duñ jël gaal de mais tey boo leen laajoon cent mille vingt millions sax ci visa États-Unis ñu fay la ko parce que ndax lan bonne question ndax la ndax lan nit ki nekk Sénégal am fa teraanga am fa liggéeyam bëgg a génn Sénégal nañu waxante dëgg Sénégal amuñu benn considération ci ndaw bi nekk biir Sénégal. di fa liggéey tekki fa am fa teranga Sénégal bu ñu àndee maag yow ma jóge États-Unis nga nekk biir Sénégal di liggéey amal ay milliards amal ay millions yoral oto bu rafet yoral kër gu rafet bu ñu rombee balaa ñoo jaar sa sant jaar sama sant man ma jóge Italie lu leer laa leen di wax te li may wax dama ko dund dama ko xam Sénégal boo jugee Italie wala nga jóge Espagne wala nga jóge Amérique ki nekk Sénégal même bu ko yàlla mayoon ay milliards bu ngeen àndee ci kër balaa ñu ko jox 16 jox la 16 Sénégal amoon àdduna ak li ci biir te amee ko biir Sénégal balaa ñëw tudd ki nekk biir Sénégal tudd ko jógee bitim réew sa famille ñoo lay njëkk a considéré noo xamante ni même nekkal caatu kër gi demal Espagne wala Italie nga ñëw demal Amérique moo xam indiwoo dara taaw bi nekk ci kër gi yore kër gi di leen dundal ñuy xëy di ko gis subaab ngoon kooku lañ gën a bañ moom lañ gën a énervé moo leen gën parce que ndax lan moom tukkiwul loolu di genre complexe boo xamante ni tubaab bi dem nañ ba ñun ñu am complexe boo xamante ni ci tukki nit ki même bu nekkee Sénégal am teraanga du am respect bi mu war a am dégg leen bu baax déggu ma benn télé wax ko nag waaw say xarit ci koñ bi même ñi ànd ki jóge Europe wala Italie jàpp na ne moom mooy VIP koñ bi mais loolu ku koy dund di ko gis màgg ci yaru ci damaa jëlee sax dimbale yaay ak bàyyi ñëw damaa jëlee bëgg am soxla bu ko faj mënoo ko faj ñëwagul mais la il ne reste que rek ñu respecté la tek la fenn xam ya xam yaay kan mais boo nekkee Sénégal di fa liggéey ba 2020 1900 2079 te génnoo Sénégal ak ah, déggoo attaché votre seen ji kañ nga ñëw li gars yi daan tant que déggoo kañ nga ñëw tekkee goo mais loolu mooy problème mu Sénégal Sénégal il faut ñu ne la kañ nga ñëw il faut ñu ne la kañ nga ñëw pour nit ñi mën la respecter il faut nga ne sama doom de mi ngi Italie wala mi ngi Espagne pour koñ bi say say maire ji koñ bi mën la jox cër bu ñu amee xew man la ko man la ndayale man la bàjjinale il faut que nga ne sama doom ah, mi ngi Amérique wala mi ngi Espagne nga mën a am place yenn milieu yi yenn garan place yenn jàkk yi c'est la réalité ñun ñëpp dañ ko dund dafa am benn considération boo xam ne dañ naan Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent musulman la mais jëf di ñuy jëf du jëf responsable Sénégal nit ki sax pour mu respecter il faut mu xam la il mu xam fan nga bokk wala mu gis la nga sol jasneer wala nga sol costume wala nga yor yenn som yi wala nga yor oto bu rafet mais du ñu gis nit rek ni ko yàlla bind ñu respecté ko ci noonu léegi nag ñu doog a ñëw nag ci problème mu am liggéey ak ñàkk liggéey dama dégg ci affaire gaal gi ñu bari di wax naan dañuy dem ci géej gi bu ñu demee ci géej gi amatuñu lu ñu jàpp amatuñu ñu jox seen i waajur amatuñu jox mais yéen bu ngeen xoolee quatre-vingt-quinze pour cent yi dem ci géej gi wallaahi duñu ay lébu am nañu jóge Touba am na ñu jóge Tamba am nañu jóge Bambey am nañu jóge Diourbel am nañu jóge feneen feneen feneen feneen feneen feneen so kon du lébu yi rek ñooy dem parce que du lébu yi rek ñoo am problème mu liggéey Sénégal te débat yi may dégg yëpp ci télé ak rajo bi mooy que dañoo demoon ci géej gi parce que amatuñu lu napp ba ñu demee ba tey ba tey ba tey ba tey mais Sénégal du du question géej gi rek moo fi nekk pour liggéey uude baa ngi fi mécanicien baa ngi fi tailleur baa ngi fi dawal ko taxi baa ngi fi jàngalekat baa ngi fi même jigéen ñaa ngi fi ñuy jaay fonde ñiy jaay mais dama ne c'est pas dañoo war a wax ne ñi ne ñi ñi nekkoon ci géej gi amatuñu lu napp rek moo tax ñoom ñëpp ñu ngi dem ci gaal yi déedéet sénégalais bi nekk Sénégal am liggéey sax xàppiwul bi Sénégal tekkiwul Sénégal tekkiwul Sénégal parce que la moo tax Sénégal da ngay liggéey di rey sa bopp di naan euh, ñeexu ba euh, ba baadoola mooy ciim sere buur moo fa am imagine toi am na am na ñu fa nekk am nañ liggéey mais seen liggéey gis ñu ci seen bopp trois cent mille francs la ngay am par mois war ci fay ndox fay ci courant Mame Ndiaye doo may ma egg I have to say something very important please yaa ngi dégg war ci fay courant war ci fay ndox war ci dundal sa njaboot war ci fayal say jàng ak doom ay école imagine toi te 300 mille yooyu balaa nga cee jot dee 300 yooyu balaa nga cee jot da ngay daw a daw a daw ba balaa weer bee dee nga fem boru 1 million wala 2 milliards. ñu jóge ci affaire ñu am liggéey Sénégal mais ngeen bu ngeen jàppee rek ñu nekk ci gaal yi dañu amul jom mais da ngeen di trompé mais nit ki mënoon toog ci këram di gis papaam ak yaayam ñu toog. man benn benn Cheikh Diop tàggu la même pas un an dem Espagne wala Italie Cheikh dem na Espagne même pas un an Cheikh moo ngi la yónnee daal li ngay sol Cheikh bu gisee kii ñëw moo lay may téléphone Cheikh bu événement jotee moo lay woo nga mot li nga jënd xar Cheikh bu euh, bu màggal Tuubaa jotee moo lay may paas Cheikh bu ñibbisee osoom lay jël fu ngeen jëm mooy dawal ngeen ànd mais Cheikh dafa laa gën ci ndey walla ci bàyyi Cheikh da ay maam dañoo gën say maam cheikh bu ngeen toogee mooy jënd ataaya sama bu ngeen bu ngeen bu ngeen àndee dem euh, dem stade mooy dagg ticket yi la plupart yaa ngi dégg mais kooku boo dee nit la di nga pour quoi pas man ma def ko moom te cheikh bi ñuy dem si gaal yi la jaar wala Moussa wala Ibra ku mu mën di doon jaar ci gaal yàlla defee ko jàmm mu egg mu lay woo téléphone invité nga koy dégg dama ne kuy borom jom toog say xarit fukk wala cinq wala trois wala quatre ñu xëy dem àgg si jàmm dama ni boo xëyee dangay wuti yoon boo jaar ba egg fekk ko fa parce que nag munoo toog di xaar ni saa bu ñëwee may la jën bu yàggee nga ne ko nañ dem ma xool fi ngay nappe lan moo fa am ba pare état Sénégal dafa amul considération ci zone sam sénégalais tamit am am am benn am benn am benn naïf bu nekk ci ñun mooy que ñun politiciens yi dañoo mel ne ñoom moom suñu réew dañ leen a bàyyee Sénégal te mënuñu fa 1 pour cent nit ñi sax bu ñu meree dañuy def loo xam ne waruñu ko def di lor seen bopp lool seen ay njaboot lor seen ay parents ndax dañoo mere ay politiciens ñun ñoo war am fulla ñun ñoo war am fayda ñun ñoo war a xam lu ñu bëgg xam suñu réew kan lañ koy jox xam suñu réew kan lañ koy dénk mais tey dem géej digaluma ko kenn digaluma ko kenn mais mënoo nekk ci koñ sa fukki morom nga nekk ak ñoom di àndandoo ak ñoom di fubali di tëddandoo di jugandoo ñu dem même pas un an deux ans tey nag naa leen ñu dem ñëpp du ñëpp a tekki mais tey boo jëlee cent personnes yu dem mën nga ne quatre-vingts yàlla mu ngi leen di suturaal tey Europe même Amérique bii nii am na ñu fi nekk ñoo xam tey amuñu amuñu mënuñu am sax cent dollars so ñu ngi ci ay problème yoruñ luñ lekk yoruñ luñ naan te ay sénégalais lañ am na xam ne ñu ngi passeport américain parce que àdduna boo demoon ba Australie bi nga fa gis ku tekki gis fa ko torox tekki ak torox ci loxo suñu borom la nekk mais yaakaar nag jàmm bi da koy am mais Sénégal jeunesse bi dañoo amatul yaakaar tey buñ naa ñu nañ xool ñu nekk biir Sénégal di fa liggéey te tekki fa mais tey boo ma jëloon tey cent jeunes yoo xamante ni ñu ngi Sénégal boo ma jox exemple ñett nga ma ci mën a jox wala ñaar ñaar walla ñett ñi am métier mécanicien bi amatul oto bu mu réparé parce que oto yu bees yi xew léegi technologie bi àgg na foo xamante ne nii mécanique bu njëkk ba ak bi am léegi du benn te moderniser wuñ Sénégal mécanique bi ba ñëpp man a am accès ci ci yi wala ci yeneen yi. tailleur bi c'est la même Sénégal léegi ñëpp ay jaay parce que ñëpp a jaaxle même ñi amoon métier bàyyi nañ ko nekk ay commerçant vente en ligne yi chaque jour statu yi da ngay dugg foo tourné am na ko publier dara parce que ñëpp a jommi docteurs yi sax dañuy jaay docteurs yi dañuy jaay que ndax lan parce que amatuñu yaakaar. seen métier doyatu leen Sénégal dañu naan ay nañ jàngal xale yu métier mais Sénégal ñi am métier ñoo ñooy taxawaalu Sénégal ñi am diplôme ñooy taxawaalu il faut que ñun population bi ñu amaat considération ci suñu ay njaboot am respect suñu ay doom tey ñu bàyyi ki nekk ci dëkk bi te tekki dëkk bi ñu koy xool bëtu génnoo réew mi wala bu nit ànd ak nit génn ñëw ñu jël ko aj ko foo xamante ni ki nekk ci réew mi da du gis boppam da ngay nekk sa biir kër xat fa te pourtant lépp yaa ko fay def mais da ngay nekk sa rakk wala sa mag sax mu nekk Europe kii nekk Sénégal mais ki nekk Europe sax bu yeewoo ndékkeem dañ ko koy tegal ci kaw table bi chaque instant ñu koy laaj ndax yeewu nga chaque instant ñu koy laaj a ndékkee amaana bu ñuy dem marché moom loolu du yoon loolu du yoon nit ki wërsëg nit mayul boppam yàlla mooy maye kenn ku ci nekk li yàlla tudd soo di ngi jot balaa ngaa dee mais il faut que ñu am considération suñu ay njaboot tey mënoo nekk Sénégal toog say moroom di dem di egg di sàcc ay buumi gàcce même pas deux ans ñu toj seen kër changé seen ay ay ay ay ah, defaraat seen kër takk soxna am ay doom yow ñu bàyyi la fi nga toogal ngay toog ci bitigu koñ bi ngoon nga dem naan benn café match am nga dem seetaan yi bu yàggee da ngay da ngay da da ngay def loo buggul def bu yàggee nga dugg ci loo warul dugg parce que nit ku nekk gor nga te nit ku nekk boo sañoon tey boo doon may sa bopp kenn du la ëppale ngir yàlla ak laa état Sénégal nañu xoolaat parent yi nañu xoolaat nañu xoolaat suñu ay comportement ak suñu ay doom parce que li am Sénégal instant bi nii yéeme na ba ëpp doy na waar doy na waar trop trop trop métti na ay nit ñuy dee président moom dama ko jëlee parce que man jàppoon naa ne tey dina génn sax def point de presse wala état Sénégal ñu génn wax expliquer nit ñi surveiller suñu euh, euh, géej gi ba xale yi duñ mën a dem parce que tey xale yi ki jugee Ndar wala ki jugee Fuuta wala Jolof am na booy yi fi ñuy jógee amul sax dex bay am géej kon ñoom Sénégal li ñu war a di lijjanti du jàpp booy yi bu ñu ñëwee di leen tëj wala wala di leen dañoo war a surveiller tefes gi. ba pare am politique boo xamante ni xale yi bu ñu bëggee tukki danañ tukki sans autant ñuy jaar ci géej tukki droit de passeport passeport ak carte d'identité ak visa ñoo yem nit ki da ko war a am saa yu ko neexee. mais complexe président africain ak ñàkk fayda gu président africain ñàkk fayda moo woo tax suñu ay doom di jaar ci géej gi di dee ngir dem Europe te Europe dara am fa Amérique bi wallaahi xasim li fi nekk ci ay france di immigré mënuma ko wàññi mat ñooñu ëpp ñooñu fëpp téeméeri junni amuñu këyit dañuy sàcc di dem dafa ay ay fake papier di ko liggéey ñoo nekk ci restaurant yi ñoo nekk ci baar yi mais doo dégg mukk France 24 wax ci doo dégg mukk TV5 wax ci à chaque fois bu ñuy wan li ñu wane mooy immigré yi jóge Afrique di ñëw di ñëw France te wallaahi xasim fi ay immigré français amul amul amul sax ci yi li nekk fi ay immigré italien espagnol amul sax ci africain yi barki alxuraanu karim quatre-vingt pour cent yi euh, français yi nekk fii di immigré amuñu sax këyit te bëgguñu dellu France France moo gën a pauvre ci àdduna tey li leen di yor li leen di lépp ci ay fiscal ak ak Afrique lañ koy africains, ils sont France mais si on président am président, on a une complexe, français bi moom bu Afrique day jël valise dem ci aéroport bi Afrique Afrique mais sénégalais bi moom bu France day day ont ay ay ay ay ay ont ko tax dina remboursement pour lan pour lan ñu war ñoo traité ñoom buñ bëggee jug suñu dëkk mu mel ñun buñ buggee jub dem seen dëkk mu mel na ñu dañoo war a dem yomal xiyam wala dañoo war a jéggi siraat te pourtant li nga fay yaakaar si amaana boo demee doo ko gis fii li fi nekk ay français yoo xam ne ak ay espagnol ak ay italien yoo xam ne amuñu këyit amuñu dara ñu ngi ci dëkk bi ah pendant dix ans di rey seen bopp di fi liggéey di fi dund boo leen gisee jàpp ne ci waa dëkk bi lañ bokk te araam parce que am Amérique moo nekk dëkk boo xamante ni ku ñëw bokk nga ki fi ñëw démb ki ñëw tey ñoo yem Europe noonu te pourtant ñoom doo dégg mukk ñu def ci documentaire doo dégg mukk ñu wane français yi nekk fii def ak jubadi di dem di wut ay ay ay ay ay dem di ci wut liggéey di ci liggéey pendant des années te kenn mësu jàpp fay ñu tax def ñu dara te xam naa si ñu bari man kon Afrique jot nañu xoolaat suñu bopp parce que dañ naan président africain yeeg euh, di expliquer président yeeg suñu njiit yi mais suñu njiit yi avant ñuy nekk ay njiit comme ñun lañu woon ñoo bokk ay école la ñu jànge ñoo bokk ay daara yu ñu génne yaag président yéen a bokkoon koñ yaag ministre bi yéen a bokk benn koñ yéen a fu footballandoo yéen daan defandoo lépp kon il est temps que ñun ñu xam suñu bopp d'abord parce que lii dafa jaay ngorom loolu amul ngor kenn du ko am di ko jaay dafa fekk mosoo ko am te tey li xew fan yi Sénégal ci politique bi ci diggante ay waa Idrissa Seck ak Macky Sall ak ñi par exemple la waa ak PDS ak nangam nangam loolu war nañu yee ñun war na yee képp kuy sénégalais booy dugg ci gaaw gi du dañoo ñàkk jom mais dañoo amatul yaakaar tey kenn ku ci nekk si nga yaakaar dëgg dëgg la dëgg la brother dëgg la c'est bëgguma euh, su ma bëggee lire commentaire yëpp duma mën a damay damay mën a dagg mais li ngeen wax li nga wax lépp dëgg la mais problème bi mooy que il faut que ñu xamaat suñu bopp il faut ñu xamaat suñu bopp il faut ñu xamaat suñu bopp il faut ñu xam ne politicien bi li yor ba tax mu ñuy mbugal ñun ñoo ko jox soo ko ñun balaa ñoo jox nit suñu alal wala suñu réew war nañ xam ki ñuy jox suñu réew ak suñu alal kan la avant tout sama xol dafa tooy mënuma wax mais maa ngi masawu ñëpp ñu jóge ci gaal gi ñëpp ñu ñëpp ñu ci faatu waaw di ñaan suñu borom yàlla may ñu ay njiit yoo xam ne ëllëg danañ mën a danañ mën a diriger Sénégal ba français beeg italien beeg américain bi yem même pied d'égalité ba sénégalais bi bu buggee jub dem Amérique wala mu bëgg a jug dem Espagne wala mu bëgg dem Italie mu jug def ko ni mu ko bëggee sans problème comme ni ko français bi defee comme ni ko américain bi defee comme ni ko anglais bi defee que metti na ay nit saa bu ñu bëggee dugg sa dëkk dugg fa nu mu heure bu mu kenn du ñun bu ñu dugg seen dëkk mu nekk du yoon il est temps que français bi sénégalais bi américain bi ñun ñëpp ñu parce que on est tous des êtres humains kon am na loo xam ne ci même pied il faut ñu am ay njiit pour fight pour Afrique pare pour fight pour seen pour fight pour pare na pour fight pour seen réew parce que instant bi nii kenn mënu ko jógee beneen dëkk dañuy defaral suñu Sénégal suñu Afrique Afrique africain ñoo ko mën defar Sénégal sénégalais yi ñoo ko mën a defar salaamaaleykum wa rahmatullah